feebar boo xam ne dafa doy waar ñu naan rester chez vous te xam nga Sénégal seen loxo jot seen ginnaaw yoruñu boobu moyen est-ce que tamit yaakaaroon na ko nguur gi avant muy naan toog leen seen kër war na leen jox dara loo xam ne dinañ ko mën a lekk wala dinañ ko mën naan parce que am na ñoo xam ne moom foo ñu mën a lijjanti pour mën a joxe seen waa kër añ wala reer wala ndékki. waa xam nga njiitu réew mi bi mu ñu wooloo ñu ñëw pale booy xool waxtaan bi ñu amaloon ak moom dañ ko ne dem naa pare maa nga fa woon ca biir ku fa nekkoon Thiat. Thiat c'est le porte parole oh, c'est bon moo ne porte parole mouvement bi mais aujourd'hui c'est Iba Mar Faye qui est le porte parole du mouvement ku fa ne woon Alioune Sané coordonnateur mouvement bi ku fa nekkoon Astou Faye ki nga xamante ni mooy coordonner esprit jigéen ñi alors tout le monde était représenté <laughs> on, on avait on a on avait envoyé une forte délégation de trois personnes <laughs> je sais pas si tu me comprends une forte délégation de trois personnes ça on n'avait pas besoin d'être nombreux pour dire wax dëgg yàlla ce qu'on voulait dire mhm. même une personne suffisait pour dire à Macky Sall que ni wéy daf ñuy wax ne parce que euh, c'est pas pour rien nous sommes de la société civile c'est pas pour rien on se réclame la voix des sans voix c'est pas pour rien on se réclame on se réclame et puis Euh, njiitu réew mi nangul ñu loolu xam ni ñun ce qu'on réclame lu nekk ci ñun la et il nous a invité ci titre boobu pour consulter ñu te bi mu ñu consulter gis liñ ko fa wax bi caat génnee dégg nga ko euh, fexeel non subventionné dund bi fexeel non subventionné euh, électricité bi ak ndox mi fexeel noo subventionné location bi même si c'est à hauteur de cinquante pour cent fexeel fexeel fexeel wax ko yooyu alors e et je pense que ni lañ waxoon gis nañ ni bi mu génnee tey jii on parle de wéy euh, courant yi dinañ ko dinañ dinañ dinañ ko subventionné courant bi ndox mi dinañ ko subventionné dund gi dinañ ko subventionné mais encore ndenkaane bu amul saytu luubal dafay yomb du ñu joxe ay proposition rek ba pare toogaat di seetaan dinañ ca toppaat di wax parce que il des vidéos ki circulent comme quoi que instant bi nii séddale bi commencé nii nii nii dañ commencé def séddale bukki bii bukki bii njuur bii sàmba non te pourtant ne waxoon nañ ko ko ne ko te ngalawaay président de la république fexeel ba nga veillé ci ba def ci rigueur boo xamante ni du nekk une distribution partisane ou clientélisme na nekk une distribution boo xamante ni ñëpp a ciy gis seen bopp surtout ñu ci war a gis seen bopp surtout ñu ci war a gis seen bopp nañ nañ ci gis seen bopp mais di waxaat président de la république que ni ñun ñi nga xamante ni ñooy topp ci mbedd mi ak di jaxasoog askan wi ñun ñi dem ba gisoon loolu idée boobu ba waxtaan ceeg yow di la remercier ci bi nga génnee appliquer ko mais encore di la ñaaxaat di la wax ni sa nit yi nga ko dénk li ñu ko commencé defee. loolu taxut ñu naan séddale te euh, defaral dafa nekkuñ di la defal lu baax ça je vous le dis encore nga xam ko boo mënee toppaat ci li nga leen jox walla comme ni ngeen waxee ni da ngeen koy jox armée bi ñu bàyyi armée bi ak seen sago xam naa ni c'est la grande muette xam naa ni équilibre moo fay am dinañ ko séddale te képp ku ci war a jot dina ci jot. mais nga yaakaar ne bu ko doon séddale nan la ko mën a séddale. mooy li fi wax léegi nii. kon donne ça à l'armée bés bu ñu ko joxee armée bi ils ont les mécanismes yi nga xamante ni ça va leur liggéey ci ak ñi ñu ci war a liggéeyal am na am na ñoo xamante ni dañ la naan dañuy da ngay taxaw ñu la Sénégal lii lii lii mooy lii moo lii mooy nombre d'habitants bi Sénégal lii mooy kër yi Sénégal lii mooy ménage yi Sénégal lii mooy euh, kii parce que quoi qu'on puisse dire aussi c'est un c'est c'est c'est c'est pas un pays organisé comme dans les autres pays tout est dans l'amateurisme tout est dans l'informel tu vois bu ñu la nee y a un million de ménages c'est des dañuy dañuy dañuy à peu wu di kii rek mais tey jii par exemple euh, on n'a pas encore encore encore encore les moyens dëgg dëgg dëgg yi tax ñu war a mun a def dëgg-dëgg euh, kii bi mais au moins war na am nañu lu fi ne loo xamante ni buñ ci sukkandikoo à 90 pour cent séddale bi ñu tax mu jóg wala ñi ci war a gis seen bopp dinañ ci gis seen bopp. loolu am na solo bu baax a baax bu fa jugee dañuy demaat benn actualité boo xam ne semaine bii passée muy affaire Soumboulou Bathily gis nañu Sénégalais yi bari ko doon attaqué si wàllum lu mu waxoon euh, ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi mu ci bi ma ci am mooy euh, xam nga nit ku juum génn taxaw ne damaa juum jéggal leen ma nañu ko jéggal amul no comment parce personne ne peut être son avocat. Elle est son propre avocate et pour elle a assumé. moom la moo toog wax li mu wax ci benn plateau moo xëyaat le lendemain taxaw ne leen la ma waxoon mu am ñu ci gaañu am ñu ko naqarlu jéggal leen ma baal leen ma àq kon nañ ko jéggal nañ ko baal àq ndem Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala Jésus Christ wala moo xam képp kuñ fi mës tooñ wala euh, baale nga te ñooñu ñooñu ëpp daraja kon ñun ay doomi aadama wax dëgg yàlla bu la nit ki tooñee jéggalu la nañ ko baal nga nekk porte de voix boo waxee ni ñu déglu ko déglu la instant yi gis nga dëkk bi affaire drogue bi xee fii fóon bi fii surtout nag ñu naan toog leen seen kër ñoo xam ne ay doomu milliardaire lañ génn naa ñoom dañuy def soirée privée ah, te ñun ñi xam ne suñu loxo jotul suñu ginnaaw ñu toog suñu kër ban waaw mais amul euh, c'est-à-dire fois aussi parce que boo naan sax dafa am kumba mu am ndey ak kumba mu amul ndey sax des fois parce que aussi bi mbir mi amee topp nañ enquête bi ñu toppee enquête bi gis nañ ni benn policier la ñu fay vingt mille francs neexal ko vingt mille francs mu jàllale leen kon kooku moo fautif quoi sérieusement policier ba leen jàllale moo fautif ndax biñ nee toog leen seen kër yi épargne wuñ ci kenn buñ demee ba ba ba ba bay fay vingt mille francs pour dem ca c'est parce que xam nañ ni bu leen policiers yi gisee ci mbedd mi ñu naan dañuy dem soirée wala dañuy génn dinañ leen caw caw yu baax wala dinañ leen dëppaat kon policier ba ñu fay vingt mille francs mu fexe ba rawale leen kooku moo fautif ci côté boobu beneen ba ña nga xamante ni wax dëgg yàlla ak yonent bi parce que man gis nga euh, soxna Ria daal. li nga xamante ni bu ma amee occasion mooy lancer un message à chaque fois que l'occasion se présente ay doomu aadama amul fils à papa amul fille à maman amul baadoola amul pour man yooyu taxawul gis nga nit ki da ngay xam nooy toogee da ngay bëgg sa bopp da ngay jomb da nga naan man jombale naa sama bopp alors ñun nag li ñu mën wax la ku ci nekk am na loo xamante ni yaa ngi ko bàyyi sa kër ñii dañuy feeñ ñii di bañ a le mais de tout façon nañ leen xoolaat toogin bi ci dëkk bi te parents yi plus de vigilance encore ci doom yi plus de vigilance ci doom yi parce que xam nga boo taxawee di balaame way parce que papaam non non non non je suis pas d'accord parce que ki nga xamante ni papaam dafa am ci moom confiance dem tëdd nelaw jàpp ni mu nga tëdd nelaw mu rocciku dem defi na muy def on va pas accuser son père quand même kenn du ne papa ji moo tax il faut que des fois itam gars yi bàyyi fu ñuy fils à papa on peut euh, tout le monde peut l'être fils à papa qui n'est pa fils à papa ku nekk sa baay la jur di wala sa yaay la jur on est tous on est tous des fils à papa et maman. mais non mais mais mais nañu ko nañ ko teg sanction bi ñu ko war a teg ah il a il a failli. il a violé euh, une loi nañ ko teg liñ ko war a teg carrément amul ma Samba la amul ma Demba la jeex na. merci li nga wax noonu tamit am na euh, am na solo dañu lay ndax yow actualité rek la ñuy dox ci yow muy affaire Zeyna macha allah yàlla may na ko am doom bu góor. alhamdulilah gudd fan bu baax a baax a baax a baax. alhamdulilah si coow loolu noonu noonu dañoo bëggoon nga leeral ñu ci tuuti rek. waaw. Euh, euh, coowal Zeyna c'est Euh, boobu ba léegi je veux parler te duma ci wax parce que peut-être bii dafa fuite génn mais ku ma xam ñi ma jege xam ma xam nañ ni man je ne cautionne pas une injustice damay toog fële dégg ni am na benn injustice ku ñuy teg injustice mu ko fële xaw ma ko nii dadan nii def dem waslu ca surtout quand il s'agit de la femme bu fekkente ni jigéen la surtout bu fekkente ni jigéen la parce que euh, teg naa jigéen foo xamante ni su ma déggee góor di ko néewal doole damay dem ma waslu ca àq def ca la ma mën ba nga xamante ni kenn du ko néewal doole parce que yàlla ci boppam moo làq jigéen kon ñun doomu aadama yi buñ bëggee baraka nanuy làq jigéen nanuy suturaal jigéen nanuy fonk jigéen nañuy xeexle suñu jigéen ñi te nañuy taxaw di wax que ni euh, ci yenn yi nga xamante ni ñu ngi koy teg jigéen ñi muy violence bi muy di leen sàkku ca ba ñuy ndaw muy di leen sàkku ba pare euh, ëmb am ca nga ne doo ko reconnaître muy di leen bu leen neexul muy di leen chantage wala gis ni conjoncture jàpp na leen ñu leen di proposer nii di leen ci sàkku en tout cas góor dafa war a dimbali jigéen dafa war a soutenir jigéen loolu laa gëm te yàgg naa di ko def te je ne vais pas arrêter de le faire donc euh, voilà. Euh, projet yi waaye projet yi mooy euh, ñu ngi dugg actuellement on est en ndànk ndànk di enregistrer li nga xamante ni c'est le prochain album de kër gi muy secret d'état donc euh, projet Y'en a yi aussi euh, Y'en a marre euh, c'est un mouvement boo xamante ni moom voilà euh, c'est un mouvement bu am calendrier wam c'est un mouvement bi nga xamante ni kenn du ko ne nii ngay doxalee wala nii ngay defee donc xam naa je vais créer l'interview avec le coordonnateur qui est Alioune Sané moom dina la wax ci lu nekk moom actuellement ñëpp xam nañ ko ñu ngi ci xeex corona bi donc bu ñu ci yàlla génnee incha allah ci kàttanam ak mbaaxam am nañ ci lu ñuy dëgmal bu boobaa dama lay booleeg Alioune Sané rek moom moo gën a mieux placé pour wax ko. maa ngi leen di jaajëfal waa Dakar Net di wax aussi. Euh, internet yi ñuy am habitude di seetaan Dakar Net ba keroog ñu fay gis leneen loo xamante ni lu dul niñ ko diglee la ngeen baleet <laughs> mais pour le moment comme euh, ñu ngi doxal ñu ngi def affaire mu équilibré mu ngi am transparence amul kii waaw duñu bu ñuy traité sujet duñ def duñ ko def dans le favoritisme donc je conseille à tout le monde de les regarder et de les suivre pour une information fiable jaa ngeen jëf wallaaf merci nekk nit bu baax nit bu oyof dañ ko woo mu ñëw Marguerite yëpp sax ma piège seen émission seet si ma lañ àndaloon ak kilifa mu nekk mag bu baax Baye Maone defe naa ni que bu waxee ñii dañ koy déglu donc dama leen di toog di daje feneen ak fi ñu koy defee si beneen daanaan merci beaucoup et à bientôt.